joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu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 haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa def xalifa di moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem ma tama dalli fa taxaw makaama dem mi nan fa Seex Fallu julli jumaa nan ca biir Samsam kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ak ndam ma tiital mu ne su la ngañati yaa di suukar maa ma sa bari jël na ndam la Bamba ni fallu fallum yàlla alaaji Mbàkke bu sey ni jaayam Bamba di baayam fallu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu yaay borom yi la masin ba joona suubu leen dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw ni sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fallilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fàllu yaay rasuulullaay dem nga fa Makka xam nga ni li laay alaaji Fàllu yaa juboog li laay am nga nga ni li yàlla hubbu laay xam nga nga ni li Bàmba hamdulaay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fàllu yaay borom kéemaan sëñ Moodu Busa Jeng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou bay baa di ab di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji baara mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makkiyu del siyaare amadul makkiyu del siyaare waa baqiya xabru tayiba siyaare kër njool makka xam nga barba seex fallu añ fa makka ba sànni jamra foon doj wa dem arafa delum ra dem na safa dem ma tama dalli ba taxaw makaama dem nañ langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir waa Makkata yaa bari ndam yaa jaloore ak ndam a tiital mu ne su laa yaa di suukar maa moom sa jël na ndam la bambani Fallu laayi fallum yàlla ala ci Mbàkke bu sey ni jaayam bamba di baayam فالمود بعرم يا جروي يا جرى خدايا يا جرى جام يا بام لا ما سين بجونا زوب لين دم غاربا jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaa raw ci mboolem law lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallo fam nga jumaa ji xàll sengul daagul dugal tariqulaay Alaaji Fallo yaay Rasulullaay dem nga fa Makka xam nga ni li lay alaaji fallu yaa juboog li lay am nga nga ni li yàlla hubbu lay xam nga nga ni li bamba hamdu lay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji fallu yaay borom kéemaan sëriñ moodu sa jeng sëriñ moodu sa jeng sëriñ moodu sa jeng sëñ Moodu bu sa jeng bay baari ab xalifa di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappeena moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makiyu del siyaar Ahmadul Mbàkke del siyaar waa Baqiya xabru Tayba siyaar kër Njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka a sànni jamra foon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safa dem na tama dalli fa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu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 yaay boomi layool masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu sayxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay wàlliyu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 alhamdulilah sariyatu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëñ Modou Bousso Dieng